gannaaw arrestation ñi nga xam ne ñoom ñoo di ak njabootam nar a nekk ci ak tumuranke ba tax sax ki nga xam ne rek moom moo di seen nijaay di Wally Ballago Seck est day xuus ci li nga xam ne rek moom moo di géew politique bi gannaaw ay kàddoom moom mi nga xam ne rek moom moo di Pape Djibril Fall bu ñu dikkaatee nag ci li nga xam ne rek moom moo gën a fës jamono bii ñu toll nii li nga xam ne rek moom la ñu teg ci ndoddam moom mii di Bougane Gueye Dany ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy dimbali Barthélemy Dias yëkkati ci ay kàddu yoo xam ne ca lañ fas yéene daal di ñëw moom Bougane Gueye daani jamono bii ñu toll nii nag ñu di ko toppee li nga xam ne rek moom moo di yëkkati ay kàddu yoo war te yëkkati teg ko ci deru koo xam ne rek ab takk der la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne rek jàpp nañ que ne dañ koo chargé ci ab dossier ba tax rek ñu war ko daal di déglu ci li nga xam ne rek moom moo di le trente bi ñu dëgmal mën nañoo jàpp que ne kat tribunal bu Tambacounda yëngu woon lool niki tey ci ay saaga yoo xam ne dégg nañ mujj fa ci ki nga xam ne rek moom moo di Barthélémy Dias gannaaw ba ñu ko daal dee tere moom mooy sax nekkat ci biir salle bi moom du fa dugg mbir mi tax na mu daal di génn amal li nga xam ne rek moom moo di déclaration wante kat mayul dara dara dara kii nga xam ne moom moo di usmaan Sonko. ak président Bassirou Diomaye fay maanaam seen régime ndaxte tamit jaay doole la ko mën a dippee ndax bu fekkente ne dañoo gis que ne kii di président de la république day dem jëm ca dëkk ba nga xam ne rek moom moo di Bakel pour rek wàllu leen ci mbir ya nga xam ne moom moo fa am kii di président Bassirou jomaay fay moom tamit nekk ci li nga xam ne rek moom moo di ay tournéem booba ba tey wante kat moom mii di Barthélemy Dias la mu gis du lenn lu dul ñoom ñaar seenu yoon soree na lool ndaxte kat kii ma nga kaw kii nga jaare ca suuf kon nag lan la Barthélemy Dias wala bokk lan la kii di Bougane Gueye Dany mën a yàqal ki nga xam ne rek moom moo di président Bassirou Diomaye fay nekkat dañ koo bëggoon a yàqal lekk ndax gis nañ que ne élection yi mi ngi dëgmal te tiit nañ lool coalition sàmm sa kàddu donte le sax fi mu toll nii eggaguñ ci wante kat ñu ngi am yaakaar que ne danañ leen sa duma duma yu metti tax rek ñu ne nañ jéem a lottal ñenn nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay leader commencé ko ci ki nga xam ne rek moom moo di Bougane Gueye Dany bu ñu sa paree jàll ci ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Diaz Anta Babacar Ngom ak ñeneen ak ñeneen di kàddu yi ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Diaz mi nga xam ne ni ki tey dafa mer ba futtu wante sax yamu sa ndaxte dafa yëkkatiwaat yeneen i kàddu nekkat le 30 boobee dina dikkaat te su boobaa waa Tambacounda na ngeen xam ne nag ñëw bi moom dina wuteeg lool ñëw bi nga xam ne rek moom la fas yéenee daal di ñëwaat ndaxte bi la yoon peut-être dañoo dikkoon indi li nga xam ne moom moo di jàmm trop yóbbul dañoo dikkoon rek pour jàppale ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany dikkoon rek pour soutenir ko ndax gis nañ que ne dañ koo tooñ ba passé koo tooñ gannaaw ñoom ba ñu indee li nga xam ne moom moo di jàmm ñu gis que ne jàmm joojee dafa mel ne rek dafa daal di réer ci fi nga xam ne moom moo di tribinal bi ba ñu fas yéenee indi lii di fitna moom mii di Barthélémy Dias di xam ne kat rendez-vous bi moom soreetul jox rendez ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Bakel dina wëññeekuwaat delluwaat fa ba kàddu yi ni mel moom da di xamle que ni danañ fa delluwaat lan moo war a nekk suite bi nag ci jamono boobu gannaaw tuuma yi nga xam ne rek teg nañ ko ci ndoddam moom mii di Bougane Gueye Dany juróom-ñeenti fan yoo xam ne rek war na ko daal di tëdd fa nga xam ne rek moom moo di diwaanu Tambacounda foofu li nga xam rek fa lañ ko war a denc ci la trent bi nga xam ne moo war a tombeek ñu daal di koy xoolaat gëstuwaat ay mbiram lu njutu ko ba xam fan la wàññeent di mujjee ak ay gëtëm ne kat da doon jaay li nga xam ne moom moo di reewande wala bokk da doon victimiser wu lu ci manti am lépp dina leer ndaxte kat caaxaan yi nga xam ne rek moom la nekkee wala bokk li nga xam ne loolu lay def ci jamono bii ñu toll nii te ñii di nguur jàpp ko ne ay caaxaan képp la moom mii di buggaan Gueye Dany jàpp ko moom mi ngi ci li ko war ba tax kii di Barthélémy Diaz di ko ci dimbali di ko ci jàppale saa su nekk ñu gis que ne loolee kat lu war la comme que lu war la nag am na droit mu daal di def li nga xam ne rek loolu la war a def moo tax nag ñu daal di nemmeeku bu baax a baax a baax ni ki tey jàppante boo xam ne sax commencé woon na di am ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef ak ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di Barthélemy Diaz gannaaw saaga yi nga xam ne rek daal dinay jib ba ñii di tàkk der yi jug rek pour daal dox ci leen fa wante kat dañoo arrêté ki nga xam ne moom moo di benn candidat bu def lu mbër te def ca lañ jàpp tax rek ñu daal di koy nëbbu jant bi mbaadu dañ koo bëgg a yar wala bokk dañoo bëgg a damm ay laafam ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndaxte gis nañ marquage à la bi nga xam ne def na ko ci ki nga xam ne moom moo di président de la république ak kii di président Ousmane Sonko ñoom ñaar ñi nga xam ne rek ñoo lëmbe jamono bi jamono bi ñu toll nii xëy dem Bakel moom mii di buggaan Gueye Dany daal di say topp wante kat jigu ko benn yoon gannaaw yërëm ba nga xam ne dafa xotti ko woon sax ñu nemmeeku ko ne niki tey moom la indiwaat ci fi nga xam ne rek moom moo di tribunal ba lan moo waral li ni mel yoo xam ne rek daal dinañ koy jot a nemmeeku ñu gis ko rawatina sax ci suñu mbokk Feeling Dakar yi rawatina nag ñi nga xam ne rek dañoo gis que moom mii di buggaan moo ko tey xotti yëreem ndax loole lu war a mën a nekk la bu ñu fàtte que ne ci langu politique la ñu nekk comme que ci langue politique la ñu nekk nag mën naa jéem a victimiser wu pour rek xotti li nga xam ne moom moo di yërëm ba ñu baree baree bari daal di ko si yërëm ñu baree baree bari commencé di ko bàyyi xel kenn kat moom mii di bugaan dañoo commencé di ko naqaral dañoo commencé di ko métital te bu fekkente ne kat loolee moom moo am nañ jàpp que ne élection yi ñu jëm moom dinañ ko xàllal li nga xam ne moom moo di yoon ndax ni de defoon président Ousmane Sonko gannaaw bañ koy fitnaal ak a naqaral ci jamono ki nga xam ne moom moo di président Ousmane Macky Sall tax rek sénégalais yu baree baree daggee ci làng gi donte la sax xamuñu woon kuy président Ousmane Sonko ca noonee nag la ñu daal di jaare rek découvrir ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko commencé di ko jàppale di ko may doole ba ñu xëy un bon jour yàlla tijjal ko li nga xam ne moom moo di bunt yi te bunt yooyee bu ñu fàtte que ne caabi yi yàlla moom moo ko yor ba tey Bougane Gueye jël bu fekkente ne wàcc ko mën naa daal di am li nga xam ne loolu la kii di président Ousmane Sonko amoon buñ fàtte que ne sénégalais yi seen xolu yërmande dafa yaatu lool te tamit tax na saa su nekk fu ñu xoqatalee nit fu ñuy tuutale nit ñoom dañuy jéem a jóg pour jàppale ko loolee moo feeñ ni ki tey sax ca diwaanu Bakel wala boog fi nga xam ne rek moom moo di tribunal ba gannaaw ba ñu gisee que am na ay doomi aadama yu jéem ñu jug rek takku taxaw pour daal di koy dimbali bari si ñoo xam ne sax yëguñu woon information bi wante kat ci li nga xam ne rek moom moo di jéego yi ñu jot a amal tax na ñu daal di feddale seen kóllëre kene kat duñu seetaan benn yoon moom mii di Bougane Gueye Dany bàyyi ak njabootam jóge ba diwaanu Ndakaaru pour rek nemmeeku si ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe gannaaw fu président demee ñuy dikk naka di ko xañ moom it li nga xam ne moom mooy àqam di ko xañ li nga xam ne rek moom moo di yelleefam kon nag àq ak yelleefam googee dafa mel ne rek jamono bii ñu toll nii salfaañe nañ ko lan moo war nag nekk suwit bi bu fekkente ne bëgg nañoo xam te tamit bëgg nañoo am état boo xam ne rek bu doylu la état bu mànd boo xam ne rek lépp luy jaxase lii di àq ak yelleefu doomu aadama dana ko daal di teg ci suuf ndaxte loolu lañ woote woon loolu moom lañ digoon ñii di askan wi rawatina nag jàpp gu metti gi nga xam ne ñu ngi ko doon faral di ko nemmeeku ci dernière minute yu président Ousmane Sonko ki nga xam ne rek moom moo di Macky Sall dañoo gisoon que ne liñ fa jàpp ci ay nit dafa bari lool takk lool ba taxoon sax ñu ne kat ñoom seen dernière minute liñ ci jàpp si jamono ki nga xam ne moom moo di Ablaye Wade genn wàllu genn wàllu gi teewuñu leen woon sax ci li nga xam ne rek moom moo di ab régime moom mbaadu loolu dafa bëgg a dellu siwaat ci jamono bi ñu toll nii bu fekkente ne nag ñu attention dina dellu si siwaat ndax lan ndaxte jàpp gi nga xam ne commencé nañ ko te bu ñu fàtte que ne ñoom dañuy soog a too ko mën nañoo jàpp que ne seen juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer sax matagul ñu commencé di def ay conneries commencé di téye ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi rawatina nag ñi nga xam ne rek dañuy yëngatu ci wàllu politique loole bu amee dañuy gis que ne yaa problème te problème boobee nag moo jàpp gi xam ne rek ñu ngi koy jàpp te képp ku def loo xam ne rek loo wër te def nga ñu teg la ci yoon yoon dina xam naka lay doxalee seen diggante wante naka buñ ko bëggee teg ci wàllu jaay doole ak mbirum politique jàpp nañ ko ni mbir mi du dox te li amoon rek loolee moom mooy amaat ndaxte moom lañ commencé di nemmiku jamono bi ñu toll nii jamono bi nag moom mii di Wally Ballago Seck naka la fa séenee def ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di njabootam gu sew gi te ñu mën leen a ay jarbaatam gannaaw ba ñu arrêté ki nga xam ne moom moo di seen papa di Bougane Gueye Dany te tamit bu ñu fàtte que ne moom i ba mu fi jugee yàggul dara di kàddu yoo xam ne rek jot nañ ko ci ki nga xam ne moom moo di Pape Djibril Fall gannaaw ba mu daal di victimiser wu rek nekk loo xam ne moom miin nañ ko ci moom lool lool lool sax fi mu toll nii nag fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam nekk li nga xam ne rek moom la xaar ci diggante président de la république président Ousmane Sonko Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany xeex bi nar a mel ne tulleeg màlle bu ñu fàtte ne ci ay élection lañ jëm te nag ku mën sa moroom duma loolee lépp nekkoon li nga xam ne rek moom moo di ab fàttali kon nag di leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi sa fooge ak faale gi seen chaîne YouTube Partout TV di leen di wax ngeen di woy di abonné saa su nekk